teewaay bi day mooy euh, li nga xamante ni moom la ñu war a warloo ak euh, communes yi comme ni ma ko waxee sànq ñun euh, suñu devoir mooy accompagner conseiller les maires parce que ci texte yi ñun ñooy seen bras technique ci wàllu éducation donc ñoom lépp lu ñuy def ci wàllu éducation ñun dañ ci war a taxaw jàppale leen xelal leen parce que am na yeneen secteur loolu moo waraloon tey ñu ñëw euh, def euh, ndaje bi pour waxtaan ak ñoom mais aussi jox leen benn euh, document boo xamante ne ni ñoom buñ ci sukkandikoo danañ mën xam yan jafe-jafe lañ am ci seen biir commune ci wàllu éducation muy wàllu tabax muy wàllu ndox ci école yi wàllu électricité ak yeneen yi nga xamante ne manqué na ci école Euh, évidemment euh, sunu euh, sunu communication communications, gën a mettre l'accent ci li nga xamante ne ni moom mooy parce que euh, boo xamul jafe-jafe yi doo ko mën a joyanti loolu moo waral tey ñu daje fi waxtaan ak ñëpp remettre un document au maire pour vraiment accompagner la politique éducative dans sa commune. waaw urgence xam comme ni ma ko waxee sànq xam nga école li fay xew chaque jour amul kenn ku ko a régler ba nit mën a ni tey problème mais li am euh, la fay jafe-jafe ñoom ñu xam parce que Nous la aussi des compétences. mais nous sommes des techniciens aussi ñoom mën nañ gis affaire dans une école du ñu xam nan lañ koy régler intervenir leneen urgent donc mën nañ jàpp ne tey même buñ ci defoon ay milliards du tee bu ëllëgee danañ xëy ne leen fii am na lu fi manqué mais li gën a am solo mooy xam ne jafe-jafe yi lii la ci tabax ci table banc ci bureau ci connectivité internet ci leneen ak leneen ak leneen bu ko defee dañuy xool yan jafe-jafe ñoo gën a tar ñoo gën a euh, urgent pour que ñu mën ci intervenir loolu moom moo ci am solo parce que nit balaa ngay def dara il faut nga planifier donc c' est un document boo xamante ne nii daanaka planification la euh, bu ko defee maire aussi buy intervenir dana xam ne jafe-jafe yi lii la dafa mel ni médecin buy intervenir il faut mu xam jàngoro bi nga xamante ne ki muy faj il faut mu xam jàngoro loolu daal moom mooy solo ndaje bi jàpp nañ ne aussi li ñu jot a gis euh, ci euh, daaw daaw jéeg ba ren li nga xam ne en de collaboration avec euh, monsieur le jàpp nañ ni euh, euh, jafe-jafe yoo xamante ne danañ ko régler lépp mais dana dana wàññeeku.